ci njëlbeen gi ma junj ko ne kilifa la goo xam ne ñu bari turam ak na ci seen nopp waaye kim doon ak li ko tax a jóg ñu néew ko xam waaye dafa benn kàddoom bu am solo boo xam ne mat naa bàyyi xel lool waaye dafa wax ne Serigne tubaa jéego ba daa gudd lool te bar waaye fas yéene naa fu mu teggee tànkam ma teg fa sama tànk. loolu ñun taalibe yi nga xam ne ñoo aju ci moom liñ ciy seede mooy wàllu pas ak wàllu defare tey kum neex mën naa woote woo taalibe waaye ndax fa ngay woote woo bi jëlee nga fa dara rek am solo ndax sëriñ bi dafa xëy suñ borom yabal yonent bi ci moom ne ko rabbi asxaabaka bil himmati wala turabbim bi dar si faqat ñu ne loola waraloon sëriñ bi tas daara ja daal di ne képp koo xam ne am jàng moo la fi indi woon bu la yàlla xas waaye képp koo xam ne nag sama yitte mooy sa yitte kaay dox ci sama dox rek moo tax ñu ne sëriñ bi daa mel ni daaray njàng kese waxuma dàqul njàng waaye njàngum kese góor a ànd ak yar nag tarbiya goo xam ne dalay tàggaleeg sa mboolem ayib yeggaleel ci yàlla ba nga yëg ko di ko dund ba doo ko bokkaaleeg dara mhm. loolu ku di taalibe wut sëriñ lii moo la tax a jóg ndax bu dee wàllu ibaadaat nga xam ne julleeg woor ak asaka bu la neexee nekk ci te doo am sëriñ te génn mënu laa génne ci lislaam waaye boo demee ba yooyu doyu la nga jël sa bopp jébbal war naa am lu war dox seen diggante loo xam ne boo toogoon sa kër doo ko ñàkk man damay faral di wax ne sëriñ li muy def ci nit ku toppul sëriñ doo ko am sa pas-pas lu mu rëy rëy rëy rëy sa njàmbaar lu mu rëy rëy rëy ca waja rek jox ko sa bop seigne Moussa ko wax ci lu gatt seigne touba di manam jax ku dem duy ko soobe ne mes bu genné xam boromam xam boromam gogu li fek top ak waja mën ko am dana jafé lol moo tax Cheikh Moussa lii képp la dekkal te daf koo méngaleeg jangalem seigne touba ba nga li ci dal ñu bari dalon nañu ci da ngay jek jek deg ñaan Cheikh Moussa cisse daaru yalla yalla ak nangam nangam ñu na ndax murit la du murit fam mu ñi ndax wóor bi ñu ci duggee nag xanaa doo doo nekkuñu ñoo xam da ngay dugg rek sëgg balaa ngay gëmm da ngay xippi xool ba mu doy la ngay soogu a gëmm te dañ koo leer leen njàngaleem Sëriñ Tuubaa xool masaalikul jinaan lépp dëppoog li Cheikh Moussa woote mooy li ma wax sànq ci kàddu gi ne daf ne jéegoob Sëriñ Tuubaa daa gudd bar waaye fu mu teggee tànkam ma teg sama tànk loolu da cee bokk ci karaamaam mooy tey booy njàng wolofalu mag ñi wala nga jàng lu mel ni masaalik wala nax ji wala xoqa mbooleem lu sëñ bi leeral ne lii moo war a dox diggante taalibe sëriñ loolu yàlla defal nañu tawfiix ba nga xam ne ci Cheikh Moussa moom lañ ko nàmpi mhm. te dafay delluwaat ci taarix ndax sëñ Moussa bi mu siyaaree sëriñ tubaa daf ko jox lettre boo xam ne bàyyam sëñ Mor Xoroja moo ko joxoon sëñ naa wax na ko sànq ne ko sama doom la gërëm naa ko xeeb naa ci sama bopp defal ma ci sëñ Tuubaa ne ko dinaa la ci defal ba defal la ci lu kawe sa njort loolay feeñ ñi tey parce que defuk sañ Touba googu mooy wéy ba léegi moo tax wax na ci bànd nga xam ne ñun ñëpp ko dégg moom Cheikh Moussa mu wax ne lii ma yàlla yoor ci jottali xeyru alamina ca màkk mu teg ko ci loxo xaadima rasul mii di jëwriñam xaadima rasul yoor ma ko fii ci daaru ma yëkkati ko ca kaw ne ku bëgg ñëwal jël da cay teg ne du ma ci taxawlu du ma ci dellu ginnaaw te kanam kanam la jëm kum neex kanam la jëm kum naqari kanam la jëm kanam la jëm gi mooy wàllu yàlla gi rek tey gonek Ndakaar wala gone goo xam ne tey suñu pas-pas leneen la waroon a doon ndax mu ngi fi bari lool nit ki mën naa woote woo murit wala woote woo taalibe waaye buñ la orienté wul pour nga mën a doxee na nga xam ne noonu la mag ña doxee woon ci pas-pas te yàlla jaral la mm. mën naa bañ a am mm. waaye loolu Cheikh Moussa da koo def bu wér nga xam ne wanewul askanam wanewul aw santam wanewul dëkkam lan la wane yàlla ay kese ñi ko toppit yàlla kese lañ ko toppee loola waral turu yàlla yàlla boobu ndax seen waxtaan lépp yàlla ay kese la biir ak biti waaw boo ci xel comme la juddoo ci ne bi ñuy dem keroog yàlla dafa dogal ñu yóbbaale ñam bu doy ca xel kom ca tool ya su ko defee ne ku xiif rek da xeemeem ne waa Saalum yee fa dem di nga xewlu boo xewloo ba pare fekk fa taalibe yi nag ñuy laabirante waxtaan wi yàlla rek yàlla nangam yàlla nangam dañ koy xam balaa ngaa jaam ya taarifoo xam lan nangam nangam yàlla ju bari jooju mooy tax yow boo xiifee sax bëgg a xewlu ji dañ naan nañ dem ca gaa yi nga xam ne yàlla yàlla rek ñoom foofu la jógee <laughs> waaw moo tax tur wu neex la te itam ab sas la mm-hmm. ndax buñ la ko taqalee rek la muy tegtale kon mooy sa wax saa su nekk dafa war a saf yàlla sa jikko sa melokaan lépp yàlla ay kese lay doon mhm. tur wi lii rek ko indi moo tax tur bu rafet la mhm. ña xamul nag ñooy yaakaar ne daa am ñaari yàlla ak nangam may leen xul wala waxar xanaa ñëpp ko jaami <laughs> waaw waaye lii rek moo ko indi ndax wax dëgg yàlla yar na njoñam tegtal leen yàlla am na taalibeem bu ma sa xewle dara bi mu ñëwee wax ko Cheikh Moussa Cissé dafa làmb ci poosam dara jox ko ko ne ko nag àdduna lii laa la fi waaye àllaaxira bu ma fa benn taalib ma fa yaakaar yoralu ma la fa dara lenn képp laa seq ak yéen mooy xamal leen yàlla xamal leen nu ñu koy jaamoo boo liggéey yàlla bokkuñu fay waaw loolu dafa gën a wóor xam nga tey damay faral di wax ne taaliba bii xaar sëriñ bu ko rambu li gën a wóor mooy xoolal sëriñ bi lan mooy leen lan moo ko tax a jóg nga topp ko te dem boo liggéey doo ko soxla hmm. suñ tool wax na mag ñi ne leen nekk ca la la neex ba yow man am su ma la doon wër ngir rambu la yow nga may wër ngir ma rambu la suñ borom xereñ na ba maag yow duñ gisante li Sëñ Tuubaa wax na ko waxaat ba tey ne li wutale àdduna ak àllaaxira mooy àdduna daraja joo mën a am teewul ku la bëgg a gis mën na laa gis waaye yow mal xiyaam ña bokkoon la ñuy def képp képp ñoo fay gisante te loolu la yonent bi waa ñëwee di ko wax waxe dana ko yow loo waajalee bis penc mu ne ko bëgg la rek mu ne ko almar u ma aman ba yow mal xiyaam daal képp koo bëgg tamit dëgg ci yow boo liggéey yéene bokk kuréer bëgg gi nag dafa mat a ndax doone bëgg naa Sëñ Tuubaa rek toog sëñ bi daa wax sëriñ bi bind sëriñ bi jëf wax jeeg jëf ji xëy na ñun fekkee wuñ ko waaye bind nañ ko nag nga xam ne war ngaa fexe ba sag murit ni ngay toppee sa sëriñ li war a dox seen diggante lépp dëppook njàngaleem sëñ Tuubaa benn mag dafa wax lu am solo mu ne jamono bi ñu toll bëgg sëñ bi baax na lool waaye dégg sëñ bee ko gën wax bu am solo bëgg eh, sëñ bi eh, baax na eh. lool waaye dégg sëriñ bi da ko gën fuuf parce que boo bëggee sëñ bi daje koo xam ne xamul fa sëñ ba daan yebale wala fa sëñ bi daan jëmee boo teeree ciy loxoom fa mu lay jëmee du sëñ bi te loolu bari na lool nga xam ne yow dangay ngay woote taali waaye fa teer ak yow moo dul yàlla du yonent bi moo tax loo wax rek du jub te boo demee ci njàngaleem sëñ Tuubaa mën na koo dàq ndax sëriñ bi daa bind lu leer lu weex tàll masaalikul jinaan boo ko jàngee ba mu jeex sëñ bi yàlla képp lay tegtale nettali nañ ku ñëw di ko jox guru bi ko sëñ Tuubaa laajee loo ci jub dana ko dégg ne mbàkke ko bëgg rek keroog sëñ Tuubaa dana luy góor ci kër gi na génn ko génne yàlla la bëgg bëgg yàlla yonent bi laa ilaaha illallaah ah, kon su ko defee nag Cheikh Moussa nañ ne li mu wéyal ci liggéey boobu mooy tegtal jaam ñi seen borom bañ fàtte ko moom ba nga xam ne am na ci bandi fu muy waxee ne li ma leen xamal ba ci yàgg ne sax du maa leen ko xamal waaye yàllaa leen ko xamal daa am lu muy bañ li muy bañ nga yaakaar ni moom la ba fàtte yàlla te loolu kum defar set nga fecc ca lool <laughs> doo jaawale yàlla ki te looloy tawhid mm-hmm. waaw tawhid bii la sëñ Tuubaa wax ci masaalikul jinaan ne kenn du ko jàng def na téere bu tudd maabul xudduus di ci jàngale wàllu tawhid boobu mooy tawhid takkulum bi nga xam ne boo jàngee téere yi xam ko waaye boo xam yàlla di dund yalla bu wér ci tasawuf go xamne gu weex tal la te tege ci sunna neen lolu mom yang koy jele ci meññatu baatu la ilaha illallah te mi ci bi tere bi fa samaru tahlili tawhidun sama waye nak lil arifina khaluhu man alima nee na meññantu baatu laa ilaha illallah moy tawhid bu kawe ci ru yalla ko jox kudul yalla lu am lu xewit da nga xamne bindef mbindeef mënul sañul na ko sëñ ko waxon lo gis mo xew bindef mënul sañu lool nak ki nga xamne yar nañ ko ci mu ko wax dëgg yàlla léppam léppam da koy jox boromam ndax xam ne ku dul yàlla deful te lu yàlla def daa gën kii noppalu na waaw du sonn du sonn addina du sonn àlaxira parce que yàlla ji ci xolam moo tax hmm. naqar bu ñëwee bëgg a dugg sax du am place góor yàlla da ciy toll ba nga xam ne kuy dund ak ku dee nga yemale ku am ak ku ñàkk nga yemale parce que yàlla mi nga xam ne moo nekk sa xol da laa doy sëkk waykat ba dafa wax ne lu waaye am te du yàlla amul dara ku am yàlla mun a ñàkkoo dara te neex naa gis lool parce que nit ki lu mu jaay ci àddina rek bu demee barsàq fii la koy bàyyi ak lu meuna a nak nag nak jall jàll barsàq dara moy fexé ba bi ngay dund nga am yalla ba amé yalla ba demee barsàq xanaa doo ko ñak waye bu alal ji fi lay des bu dee soxna yi fii la des bu dee kër geeg bi ta bo sédol ñi lool rek la dox ci la dawal suba ngoon guddeeg bëccëg tay ut yalla xañu la lool wa ut yalla xañu la ko mën nga am yalla ba nak am lool ta yala, yanti amé délo ko yalla yonent bi dara faral di ñaan né allah marzaqani ma uhibbu fajal khuwatan li fi ma tuhibbu yàlla li may bëgg loo ma ci wërsëgal rek yàlla na nga ko defaat kàttan ba ma delloo ko ci li nga bëgg loolu mooy mandargay kuñ defar su ko defee Cheikh Moussa Cissé liggéey bi nag wax dëgg yàlla daf koo def bu wér a wér nga xam ne taalibe yi seen kàddu yàlla yi kese la waaw nit ki mën naa doy di lool ci saayir ni nga di ko xool xeeb ko waaye boo saafanteeg moom rek xam ne la sëñ Tuubaa doon wax ne am na koo xam ne tabax na ba teg ca kaw te ngunu sax amu ko yomal xiyaam am koo xam ne fa mu dëkk ay gunóor rek jinax ñoo koy wéttali te ay njëndeem mat na ca àjjana loolu nag borom bëti biir moo koy gis léeg-léeg mën ngaa gis nit xeeb ko lool yaakaar ne dara nekkul ci moom fekk ne boo ko làmboon dëgg-dëgg mag ña toppoon sëñ Tuubaa la ñu wuti woon loolu lañ def ci moom te neex naa gis loolu xam nga magi magi magi murit yi ku mel ne sëñ Mbay Jaxate mm-hmm. wax na ci benn wolofal ne xamal ni yàlla mat a jëm ku jëm ci moom a mat a jëm jëmal ci yàlla mbaa nga jëm ci ku la biir ni ci la jëm waxaat ba tey ne ku bàmba jàngal nga mën a jàngal képp ku dikkul siyaare bàmba boobu am na leen jëlee ci sëñ te sëñ Tuubaa ku ne xam na ne yoonam amul tànki ginnaaw tànki kanam rek la am waaye sama mbokku murit ñu ci bare ba dañ koy natt ci saayir bi rek tey la yëre yi gën a rafet tey la tabax yi gën a bari tey la xéwal yi gën a bari mais baatin biir noonu la war a doxe te sëriñ bi neewoon na ku ñëw ci man ngir koom yeeg saayir si ma jox la yooyu sama baatin dellu si kon baatin bee ko gën a ñor te baatin bi mooy defar suñu baatin su ko defee baatin boobu nag nga xam ne mooy wàllu tasawuf mooy wàllu xaqiqa mooy wàllu uti yàlla ci nitu yàlla loole Cheikh Moussa da ko dekkal bu wér a wér ba nga xam ne taalibe yi ko topp bañ mu jëleen leen wooye yàlla yàlla sax loolu ko indi mooy waxtaan gi ñu waxtaanee yàlla ci seen mbooleem nag yëngu bu mu mën a doon dama koy di wax sax man ne kuñ ne yàlla yàlla bi bés bu waxee leneen leneen la leneen nga di parce que yàlla nga waxtaane bañ jël turoo askanale la ko kon kay xanaa sañoo waxee leneen te yàlla gën a kawe lépp ak sa wax na ci alxuraan ne ala inna xisballahi humul muflixoon mm-hmm. nee na kuréelu yàlla yi ñoom ñooy ñi taxe ala inna xisba cheytaan humul xaasiroon ñi nga xam ne ñooy kuréelu seytaan ñooñu mucc ñooñu moom kenn du ci mucc moom ñooñu ñi nga xam ne boo liggéey ñu perte kon nag féeteeg yàlla ba est-ce que ne leen yàlla loolu dafa gën a wóor te gën a dal xel ñu ñaan yàlla mu saxal ñu ci rek waaw la ilaha illallah sëñ ji bi waaw man day euh, gën naa ci gindiku euh, yéen ñi doon wax yàlla yàlla xam ngeen nag yàlla yàlla yaa ngi nii euh, seen lépp yàlla la waaye dara génnu ci yàlla loolu lii lu mat di xamale la xam nga boo gisee média mm. am solo mooy am na ñoo xam ne dañ ko daan dégg neneen waaye bi ñu ko dégloo tey dañ ko gisee noo xam ni dañ naan lii de xamu ko nii moo tax mbir ba nga ca àddu rek na nga ca laajte ba mu ci lu leer nañ ñi